mooy sunu gaal asalaamaaleykum bu kee xarit si ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen jaajëfal lu bëree bëri mbégteeg bandeex la ñu amaat saa su rek dellu si waat fii lundi bu euh, nekk rek nu ñu baaxoo di ko def di leen wax rek euh, bon semaine à tout monde ñu démarrer semaine bi si jàmm euh, si lundi bi lundi tey bi nag moom ñëpp ñu bëri dañu stressé mais bon dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam ñaanal suñu Lion Sénégal yi yàlla may leen ndam ñu daal di ñuy indilaat rek coupe bi desaat encore suñu loxo loolu lañ leen di ñaanal ñu daal di nag gay na nag dëgg enfant xam naa ne nag du yomb nag comme ni ko pëli di waxee ñii wa moom lu koy lu koy daaneel du yomb kon noonu lay jaaree daal di nuyu ñu nekk si hôpitaux yi ñu nekk ci kër yi feebar ñi nga xamante ne caabi dalee na fii ci ginnaaw ñi nga xamante ne tamit dañoo am soxla yal na yàlla faj aajo yi faj soxlay képp ku nekk ci difficulté mbaa nekk rek eh, ci loo xam ne tolof tolof la suñu borom yal na ko ko yàlla dindil yàlla defaral ñu xéewal ak ngëneel comme j'ai l'habitude de le dire tout le temps eh, c'est un grand plaisir de retrouver mes belles dames tout le temps je suis avec la belle naa la. yaa ngi noos. cool tranquille. Hmm. Mhm. tu es toute jolie là. mais gis naa la. ak sa sa blouson ñu gis yow yaay tey ñu ngi supporté yow tey du ñu wax parce que dafa am kenn koo xam ne dañuy bañ mu xaw a euh. xaw a mi ngi ci côté bi gis nga mi ngi waaye mais moom li mu def a gën a garaaw bàyyi ba mu ñëw ci moom waaw li mu def gis nga ko couleur yi waaw jeu de couleur yi ah baax na doy na waar mais ñaar naka ma maa ngi nii bees euh, naka weekend bi ça s'est très bien passé hmm. alhamdulilah yaay tu n'es pas stressé aujourd'hui euh, comme tout le monde hmm. comme tout le monde ah trop stressé comme tout le monde hmm. mais bon ça va aller on croit au bon Dieu incha allah ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateur téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu euh, di leen sargal di sant yàlla moom mi ñu may ba ñu dellu siwaat ànd ak yéen fii ci télévision Futurs Médias surtout Sénégal la ñuy wax kon dañuy ñëw ànd ak yéen ànd ak yéen ci euh, jox leen seen i teranga waaye tamit ànd ak yéen ci animation comme ni ko Bessél waxee léegi ñu daal di wàcce tension yi ndaxte comme ni ñu ko waxee bër ci démb ak bërkaati démb ba léegi ñu Sénégal dem nañ ba yaakaar te tey ñu ne match bi nga xamante ne dañ koy amal amul bëri nañ ay point amul jël nañ paie ci suñu groupe match bi buñ ko joué euh, suñu dañ koy gañe rek mm. bu dee ba ca topp kenn comprendrewul te ñu ñuy dajeel dem bay dugg ci pax bi yàlla jëkkaat seen loxo ñu génn <laughs> donc ñooñu dañuy naqare dañuy naqare lijjanti dañ naqare lijjanti ah. mais comme on dit rek suñu gaynde yi d'organisateur c'est pas du tout on a confiance à nos lions on a confiance ñi nga xamante ne ñoo jël paie ci Afrique bu ñu ko fàtte waaye tamit xale yu am jom xale yoo xamante ni besel gis nañ ni euh, il se donne à fond gis na mm-hmm. Sénégal boobu ba compétition bi commencé ba léegi gisoo kenn ku wax sa fan ba parce que sénégalais tant que tu fais du bon travail ah. il se tait mm-hmm. il dit rien mm-hmm. mais du erreur bu ndaw rek euh, ñu ñu ñu daal di euh, song réseaux sociaux yi donc li ñu mën a def rek mooy jiital suñu ay gaynde topp ci ginnaaw ñi mën a ñaan nañu ñaan tey na te ñëpp teel a wàcc ku ci nekk toog jàkkaarloog sa am naa confiance daal bés. macha allah ñaatam am na confiance. looloo tax mu daal di sol benn blouson bu baax. gis naa la blanc ba daal di ñëw feelu ko nag def benn rose. rose blanc blanc ah. mais macha allah <laughs> noonu rek daal di ñëw ci Khady Mbaye. Khady Mbaye nag nee waroon naa ko jox sama blouson bi léegi nag damay bàyyi nag téléspectateurs yi daal di ñuy àtte. mais Khady Mbaye li nga couleur li nga nekk di supporter Lyon takk collier bi gis nga collier bi drapeau mm-hmm. Sénégal daal di def nag euh, écharpe ah ci ginnaaw gis ñaata xam nga yow wanu la si ginnaaw waaw gisoo si ginnaaw a tax doo maye dara mais dama jaar dama jaar ci ci Proxaan Couture mhm. rond point Cyprès mhm. mhm. man defante ak man lu baax li nga changé tey suba euh, euh, tax nga doon naan bi tey ah, non <laughs> macha allah ba pare ma dem ci ki nga xamante ne moom mooy différence fashion. différence station. waaw différence station. xale bi nga xamante ne ma nga États-Unis Amina. demu fa di aañ wala di di di di di pëlla du wure moo ma moo ma moo ma jox collier bi ne ma demal nga supporter Sénégal. Ah, macha allah wuri jàll jaar ci périg bi ma daal di ñëw léegi nag bébé Xadi Mbaay sama turandoo. waaw maman Xadi daal di may jox écharpe bi ne ma demal maam def ba mu baax. ma ñëw jàkkaarloo ak yéen mais mënoon ngeen ma jox ci blouson yi. léegi yow ban blouson moo la fi jot. non mais sama pointure. bu <laughs> mbaa xam ngeen ne dama koy takk nii. Mhm. pour yéen dama koy def nii rek mu bàyyi. Ah. dama koy takk. dañ koy takk takk wallaahi cest dama damay def samay dàll def sa wala ma def samay basket. takk wala ma def samay tëmbër def ah! sama wallaahi. da koy jàpp nag. Eh. yàlla yàlla boo sol jiin rek daal di sol benn mayo rek loolu nga waroon. maye du ma ne benn xale bu ma topp mais ku jooy di nga dëpp. Badou. waaw. def dem kon nuyoo maa ngi nuyu ñëpp ginnaaw bi ma sante yàlla teew maa bàyyi nuyoo bi sax sama xol bi daf koy daf koy seddal ba nga xam ne. xanaa ma may la veste la ci am ñi rek. jeex na non man xaalis laa bëgg tey. waaw grave ma jox la. ma jox la su xaalis laa euh, naa la cent mille francs ba ci dem bi ñuy loo doyawul dara ni ma téyal ma ko noonu. fu ma la ko fu ma la joxal ma ko sama rakk ji merci ku xam juróom-ñeentam day xa jàngal fukk. <laughs> nuyu naa ñëpp. ginnaaw bi ma sante yàlla. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama ñaari waajur yi di leen ñaanal fu ñu jëm. <clears throat> gënal leen fi ñu jógee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baat bi dafa sonn mhm. di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi hôpitaux yi mbedd yi géej gi jéeri ji tali bi jaww ji fu waay mën a nekk di am loo yëg ci sa yaram lu bokkul ak wér yàlla na la ko yàlla saafaraal mais ñaanal ñi caabi féete ginnaaw yàlla wëlbati caabi ji ci seen kanam te bañ leen faa delloowaat te ñu bañ a def ñu leen fay yóbboo di ñaanal euh, waaye dawlu yàlla oyofal suuf ci seen kaw boole leen ak malaaka yërmande ñoom ak kuñ fa fekk ku leen fa fekk ak ñun ñi leen fay waaj a fekk yàlla na yeex sa fekk ñu ci lu baax may waxaat rek gaa yi ne leen uh-huh. tey du yomb pour ñun ak waa Côte d'Ivoire mm. non dinañ leen dóor ba ñu nërmeelu parce que xale yi ma gis nii no xale yi ma gis dañoo ñëw ak fullaak fayda ak jom ak gëm-gëm te xam ne euh, lu leen di xaar aussi population bi merci c'est important non nañu am courage te xam ne Euh, coupe bi fii lay ñëw. incha allah rabbi loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom euh, coupe bi encore mu desaat si suñuy loxo euh, comme ni ko ñaatam ak Khady Mbaye waxee rek xale yi ñu ngi wone fulla ñu ngi wone jom ñu ngi wone fayda xam ñu aussi li leen tax a jóge Sénégal daal di dem fi nga xamante ne rek moom mooy Côte d'Ivoire waaye loolu yëpp nag ndam yàlla moom moo koy may il faut que loolu tamit ñu bàyyi si suñu xel bu baax a baax di ñaan nag yàlla suñu borom yàlla mi nga xamante ne rek moom moo am lépp moom lépp di maye ndam yàlla na yàlla mayaat Sénégal ndam rek

gaynde yi moom moo ko bind nañu dem seetaan clip bi daal di le gardien du temple bâtissez les nouvelles mailles séduisantes du Sénégal des élans féconds vous soldats tricolores aux souffles inépuisables effritez-vous vous soldats tricolores aux souffles inépuisables conduisons l'épopée équestre aux galops effrénés piétinant des gazons d'Israël. Déployez-vous à travers toutes les zones de vérité sans aucun interdit, toujours à l'écoute des messages du Sénégal. Le Sénégal des missions tulériques, le Sénégal des missions impérissables, le Sénégal des victoires enchantées. Vous avez les prières de nos imams au refrain sans fin. Vous avez les messages nocturnes de nos génies invisibles aux phalanges d'errants. Recevez les chansons lascives de nos femmes radieuses à l'écoute des nouvelles victoires. Effritez-vous, lion de la Teranga, effritez-vous, source de vie et de lumière, porteur d'espoir et d'idéal, témoin des gloires d'hier et d'aujourd'hui, incrusté dans la carapace des tortues et dans l'asphalte du souvenir. les lions de tous les temps. À vous, lions aux crocs acérés, dompteurs de la brousse, vous, lions de la teranga, vous êtes les souffles virils des tam perforés. Domptez le ballon rond au souple cuir, faites-le circuler, faites-le pleurer, faites-le hurler, donnez-lui la force de l'ouragan matinal. Vous, lions de la Karanga, perforez les défenses hermétiques, faites trembler les filets adverses. À toi, Alioune, Alioune Cissé, au nom prédestiné, toi, le vieux lion, l'épopée de 2002 l'esprit de finesse à l'esprit de géométrie et transmet cette force fugace et imprévisible à ton équipe. pour que vive le Sénégal des libertés arrachées. Transmets-lui la flamme ardente et la fougue surréelle de pour que vive le Sénégal des libertés arrachées. À vous, lions de la Teranga, écoutez les voix qui galvanisent, qui appellent aux naissantes victoires. La voix du maître Laïgao, au son polyphonique, le timbre mélodieux de Majusel à la voix envoûtante, la voix salvatrice de Malal l'héritier, la voix suave de Tassirou la voix de Soram de Pape le roi des planches, la voix séduisante du sage et la jument Sommeil, mais la voix souveraine de Becaye la voix scientifique de El les voix lyriques de Mame et de Sode Écoutez toutes ces voix unies dans leur commune volonté de vie et d'espoir, dans l'allégresse des nuits estropiées. À vous, griots du Sénégal, vous qui détenez les secrets d'hier et le langage des louanges d'or, faites égeindre les khalams fétiches et les solos frénétiques des balafons. les djingdjous de guerre, les tabalas sacrés au son rédempteur. Écoutez ces voix qui vous accompagnent dans l'accalmie de nos rêves. Ces voix de Youssou l'étoile africaine aux sonorités plurielles. De Baba le rossignol du Fouta, de Omar l'intellectuel du Mbalar. De John Balago Seck, le poète majeur. Au retour de cette campagne victorieuse, vous serez accueillis par nos radieuses femmes, ces gazelles félines à la taille de sorgho, aux paumes des mains gracieuses, porteuses du lait de la chamelle féconde. Vous serez accueillis par cette jeunesse ardente et enchantée, mais vous serez surtout accueillis à l'aéroport international Blaise Diagne, aux attributs triomphateurs, en direction de kër gu où vous serez accueillis par le maître des lieux le gardien de la Constitution son excellence le président Macky Sall oui il vous remettra les suprêmes distinctions de la République devant toute la nation car vous êtes devenus les souffles inépuisables de nos hymnes sacrés Vous êtes devenus les veloutes sublimes des foudres coléreuses qui résistent à la pluie, au feu, au vent désormais. Oui, vous serez les symboles vivants de nos rêves gravés dans les nuits de volcans. Permettez-nous de fixer à travers les paliers des âges les sillons des mers océanes et des cumulus aux cieux constellés, les nouvelles épopées pour enflammer les foules en délire du peuple sénégalais, gravées au sommet de nos falaises grâce à vos jambes bénies. Les hautes citadelles de la dignité, du patriotisme et de la terre première, avec vos syllabes dorées et vos mains de salpêtre, écrivez le plus beau poème de notre nation. merci beaucoup ci euh, yab boobu xam nga nag Sénégal dafa baaxoo lii mag yu njëkkee bu ñu doon daan dem xare ji géwél yi dañuy daal di ñëw tagg leen wëy leen ba ñu am force te yaakaar naa ne test bi nga xamante ne suñu papa jooju Alioune Badara def na ko mu nekk loo xam ne lu am solo la yab nañ leen nag yab nañ suñu gaynde lii mooy wane ne ñun ñoo ngi seen ginnaaw Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar euh, yaakaar naa ne paroles yi ku ko dégg ñaatam paroles yoo xam ne daw na yaram waaye parole koo xam ne góor ak koo xam ne ni li ko tax a jóg bu ko déggee rek da koy gën a may courage gën koo may force. dëgg la Bessel suñu tonton Alioune Badara Bèye encore une fois ñu koy remercier bu baax a baax nekk nit ku baax nit ku mën li muy def. nit koo xamante ne dafa topp groupe Futur Média macha allah mi ngi encouragé. Mhm. mi ngi waxtaan ak ñun mhm. donc euh, dañ koy dañ koy ñaanal mu yàgg fi te wér. di mhm. papaay tonton mag euh, nekkoon un grand réalisateur boo xamante ne mi ngi woon RTS ñëpp xam ko. écrivain nekk nag koo xamante ni bu bindee rek nga ni gongo ah. waaye tamit mu jox ko koo xamante ni macha allah allah baatam su waxee rek tonton Pape Faye nga xam ni macha allah wax na euh, intonation yi rek dafa am lu muy def ci yow Bessél wax na ko léegi ñun dañoo baaxoo bu ñu dem ci xare ñu yab bu ñu la yabee wax la fi nga jóge ni la puso bi bu mu réer nga daal di doog a xam nag yow yaay kan ak fan nga jóge je pense que loolu tey jii moom moo indi woon euh, li xewoon euh, ci 2000 parce que mi ngi ko bindoon en 2019 la génn mu nekk loo xamante ne ni également Bessél dafa topp génération boobu ba ci génération bi parce que heure boo ko tegee rek mu nekk lu bees waaye tamit bàkkal ñu ci suñu gaynde yi nga xamante ne ñoo nekk groupe Futur Média ku ci mel ni tonton Laye Diaw ku ci mel ni ñoom Malal Junior Diagne nga xam ne ndono la ci moom ak ñeneen ñeneen Mame Fatou Ndoye ak ñoom tonton waaw wax naa ko léegi tonton Laye ku ci nekk mu bàkk la ci day tax tey jii boo ko dégloo wala nga gis ko rek da ngay am force boo xamante ne da lay permettre nga mën a dem te kenn du la téye Khady Mbaye waaw tonton mag de ku ne tonton mag xam ne Euh, intellectuel de haut niveau la. dëgg la macha allah baatam maanaam euh, baatam dafa am solo. Euh, la mu jàng yit ba yegg si fii mu yegg si tey jii. Mhm. yombul dëgg la. macha allah ñu ñu ñuy wax gaynde yi rek ne leen lii ku mu doyul leneen dootu la doy. beneen bi ci des xolal tey ku ci mel ni ji Alaaji Mansour Mbaye bibliothèque la. Mhm. ku ci mel ni Alaaji Vieux Seng Faye bibliothèque la. Alaaji Doudou Ndiaye Rose Bayou Lamine njaay sama doom hmm. bibliothèque la hmm. ak ñeneen ak ñeneen maamu Aïda ah, ah, ah, suñu maam jooju nga xamante ne moom mooy eh, Samba Jabare Samb waaw maamu Aïda Samb sama rakk jooju eh, eh, ñooñu mu ci wane rek maanaam ñoom ñëpp ay bibliothèque lañu donc mu ñaax gaynde yi nga xamante ne ñoom la yaakaar ginnaaw yàlla pour ñu indil ñu coupe fii te nag indiwaat ko te dañu koy indi parce que gars yi su may gis ni ñuy centré xoolal laay jaw mi nga xamante ne def na fi lu ne ci wàllu sport macha allah euh, euh, ah euh, xoolal reportage bu ne merci def na fi lu ne xoolal malal ndeysaan kii nga xam ne moom it baayam def na fi lu ne hmm. macha allah ñoom ñëpp daal Pape Faye waaw Tayiru noonu Pape Faye aussi noonu ñuy wax ne xoolal Alaaji Mansour Mbaye suñu suñu baayu baayu baayu uh, ah, Ndema Mbaye ak Adja Mbaye xoolal waaw mu ngi noonu ah xoolal ah, Alaaji Assane Gueye maam Fatou Ndoye eh, jigéen ju mën góor macha allah kon nga xam ne Sénégal mhm. am na ay valeur mhm. macha allah bu ñu ko yàq jaset ah. su ma xoolee ñii di rey nit ñi mhm. Alaaji Samba Jabare Samba kii moom it def na fi lu ne macha allah Alaaji Samba Jabare sàmb mu la tëyal buumu buumu buumu xalam rek xoolal alaaji Doudou Ndiaye Rose gàddu galen gi ñu ne deetawaay mu ŋànk ko di ci def lu ne daan ci def lu ne non waaw bii <laughs> ah. maa la wax loolu kooku mooy Pape Lamine Ndiaye sama doom ndeysaan yal na leen yàlla yërëm te yéex ñu fi nekk xool xoolal gaynde ah. gaa ngi ah. la la la la lion baa ngi nii ah ah waali mbergaan beneen gaynde gaa ngoogu ah macha oh. lii mooy wane ne lii mooy wane ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar nee nañu nee nag euh, àdduna su bëggee soo bëggee maanaam sa dëkk mu dox mu mm-hmm. avancé daal di dem ci kanam mm-hmm. da ngay jiital li nga xamante ne moom mooy sa culture. Mm-hmm. yaakaar naa ne ñun Sénégal tey euh, ku ñu xam xamee ñu suñu culture ku ñu xam xamee ñu si suñu aada suñu cosaan moo tax tey ñu aadawoo euh, bu ñu amee dara ñu. ñu ñu tagg la mm. euh, euh, daal di lañ nag bébétal ba nga xamante ne mu ngi noonu nag mm. ba tax na rek dañuy ñaanaat yàlla suñu borom suñu tonton Alioune Badara Bey mm. mu daal di ñuy bindalaat tamit suñu gaynde yi ndaxte bii ba mu koy deful ni ko ñaatam waxee eh, waaye ñu ngi koy ñaanaat rek yàlla mayaat ko kattan bi mayaat ko wér gi ba suñu gaynde yi nga xamante ne nag indi nañu ndam te Sénégal yàggoon xaar ñu am ko ci gaynde yi mu daal di leen defaraatal tamit beneen texte beneen beneen bàkk ba nga xamante ne rek suñu leen bàkkee bàkk ba dafay gën a waaye bàkk boo xam xam du ci gaynde yi kesa ah. mm. parce que ñun ñi ñëpp ku ci munta doon mm. sénégalais bu mu munta doon bàkk bi boo ko dégloo rek sa yaram war naa daw ba lépp looy yëngatu mm. ci lépp looy euh, euh, gestu rek nga gën a cee ñaaxaat sa bopp gën cee lippali di naan ɓuraaxeen ñiib de xoore maada mu nekk loo xam ne lu am solo la kon nag gaynde yi ñu leen di ñaanal yàlla ndam yàlla mi nga xamante ne mooy joxe ndam yal na leen yàlla may ndam ñëpp nañu yor seen i kurus ñaan yàlla parce que yàlla rek ay maye ndam xol yi aussi jeex na ba pare li ma ciy dolli mooy tey li nga xamante ne omettre nañ ko léegi mm-hmm. mooy euh, sport dafay boole waaw gis nga bu sport ñëwee mm-hmm. euh, ka nekk ca pouvoir ka mm-hmm. nekk ca opposition ka nekk jubóowul ak diw ka àndul ak diw ñëppay booloo nekk benn donc sport mooy li nga xamante ni moo mën a boole moo mën a dajale waykat bu mag bi woy na ko donc pense que bu ñu ñaanee rek li booloo bu ñu ñaanee yàlla da koy. da ngay gis ñu tongoo ay at. mais dañu Sénégal dugal bi wala beneen dëkk. ñu lëngoo mais ñu lëngoo eh, juboo daal di am. may wax besel ne. Eh. lii day wane ne ñun. lu bon waruñu. waruñu xamuñu ko sax lu ñaaw waruñu. déedéet lu salte waruñu. déedéet rend yi ñuy rendi mm. agressé yi ñuy agressé nit ñi. Ah. façon yi ñuy def nit ñi. amu fi woon tuuma yi ñuy waxal nit ñi. Mm. Euh, euh, nañu ko bàyyi. àdduna amul solo te loo gis ci nettali lay mujj. Mhm. yàlla na doon bu rafet. amiin jërëjëf Khady Mbaye li ñu wax dëgg la àdduna gaaw na lool. Mhm. àdduna amul mbokk amul xarit. amul àndandoo mhm. amul ku am. amul ku ñàkk amul ku xeeñ lu neex amul ku xeeñul lu neex aduna daal xamul ku rafet xamul ku ñaaw amul may nitu valeur rek kenn nitu ku ñuul jeex na kon nag aduna daal comme ni ñu koy waxee moom mun a war ba tax na rek woo leen ñu si suñuy numéro téléphone ñu daal di ciy ànd ak nag suñuy partenaire ñu neex a àndal waa Cabrex ñoom ñi nga xamante ne gazinière boobu ñoom ñoo ñu ko jox ak frigo ak téléphone yu yàng yooyu daal di ànd ak aussi Adja ombilico ci chambre à coucher ak salon yi nee naa leen chambre à boobu moom yéene naa ci ñaatam Euh, mu daal di koy rek jël rek ah. ah waaye xam naa balaa ñu ko koy wàcceel man lañ koy njëkk a non da ngay ñëw nga tëdd côté bi ma tëdd côté bi waaw wax na dëgg ñu teg ko ci digg bi ñu teg digg la kon jeex na bi ma daal di koy jox Khady Mbaye ba yóbbul ko ko rek moom it ah chimère jox ko ko kon noonu la ñuy demee waaye Khady Mbaye moom xam naa ne salon bi sax du ko intéressé moom lii ko intéressé oh, waaw bijouterie la solution ñoom tamit ci bijou yi rafet a ah, yàgg na yow tamit nag <laughs> <laughs> ah kon nag ma koy jaajëfal kooku di madame Nia ak monsieur Niang bijouterie la solution bijou yu rafet yu raar boo leen fa demee ci ñoom ngeen koy mhm. fekk ñu daal di koy am ma ne ko sama mag ju baax jooju boo demee dalay lay conseiller daal di lay dalal xam nga mhm. ni mu lay jaayee sax da ngay am plaisir pour jënd voilà mu ngi loolu nag kooku di madame Niang mhm. séeri madame Niang di xolu madame Niang kon nag gaaw leen ci euh, woote bi ma fàttali leen numéro téléphone yi 88 rek 628 20 20 88 628 22 22 88 628 72 86 88 676 05 05 88 628 65 65 88 628 05 05 88 676 03 03 88 676 06 06 woo leen ñu si numéro téléphone yi loolu nag nañuy demee rek ñaatam daal di dem seetaan beneen clip. ci la bokk. waaw comme defal xol yi rek wax gars yi nañu. dañu supporté comme ni ñu nekk di supporté nii rek. voilà di ah. génne stress bi. àndandoo ak moom bi commencé di entraîné wu. voilà commencé entraîné. waaw Youssou Ndour The Line la ñuy dem seetaan. xarit yow ndekk bi da nga de. non damay entraîné. ah. bu ma ne benn xale bu ma dëpp nee waaye donc ñu koy jaajëfal waaye nag jaajëfal Youssou Ndour ci woy bu neex boobu ñaata mooy bi neex na de. dëgg la de Lion mu nekk nag son boo xamante ni moom itamit yàgg na rétro la mais chance bi ñu am ak Youssou Ndour heure boo indee euh, li muy woy euh, mu nekk actualité heure boo indee li muy woy artiste mën ci inspiré wu te heure boo andee li nga xamante ne ñu ngi koy woy ku ci nekk ci nit ñi mën nga ci inspiré wu wala nga jële ci loo xamante ne sax di nga ci mën a tëggaat beneen beneen beneen son donc Mbaye Youssou Ndour daal mu Youssou Ndour daal. moom boo ci kaw par force macha allah te nag lu mu dëgg la na fi lu ne. Mhm. lu mu way téere la fexe na ba moom daal marqué na empreinte am Mhm. ci part tout dans le monde yàlla na ko yàlla fay cat. amiin amiin waaw euh, bi woy naa ne am na gaynde yoo xam ne des fois sax dañuy jël seen casque daal di koy déglu pour gën a mayaat leen force donc ñu ngi leen di supporté xam naa daal poussière bi sonal nañu bëri soj bi sonal na ma. Mhm, sonal nañu ah sonal nañu. de. <laughs> a man nag ma. Ah, yow sañoo. non non non. Ah, yow loo des. man non dara. mais Xadi Mbaye faaw nga soj. Aliouma faaw nga socc. non man mënu ma socc. wuy ma nit booy ànd ak say nawle. du soj socc man du ma socc. faaw nga socc. du ma socc de. Xadim Mbaye wàll la socc bi. Eh, am na ci gis naa ci benn grand boo xamante ne boo demee këram. socc mm. du la xelal ataaya. <laughs> dëgg Moussa Mbaye papa ah. Moussa Diop. Ah. boo demee këram soj muy xelli lëwal. Mm. du la xelli deuxième du la xelli du la xelli trois. wax na dëgg soj dafa métti boo waxee mu ne la soj soj mooy feebar bi gën a grave moom la tubaab gën a ragal. waaw moom dëgg la mais. Ah. non yow tamit ñoo <laughs> ñoo ñoo ñoo far léegi ñu bàyyi ma man kii non tuus ko la ma xam nga nag Khady Mbaye bi mu ñëwee ngeen xam sama jikko da ngeen ko warul woon a indi ci plateau bi la métti yow doo ma rey dama wax sa découvrir man dama yaru woon ñaata man ma yaru woon man dama yaru ma dama yaru waaw baax na. Ah? comme dafa yaru baax na. léegi xale <laughs> yi. man mais Bessél. Ah? Euh, pour dellu si juste rek ci kii yu Youssou Ndour bi ñu teg léegi. et ça xam nga ni album bi mooy album bi nga xamante ni moo njëkk. répertoire Youssou Ndour boo xamante ni ñi yóbbu nañ ko sur le plan international. Mhm. mondial. Mhm. voilà donc mu tuddoon The Lion. Mhm. Euh, mi ngi génnoon en 1989. 1989 euh, donc mu nekk album boo xamante ni nit ñi tubaab yi. ci lañ gën gën a découvrir ci lañ découvrir mën naa ko wax Youssou Ndour ndax sa album bu demee sur le plan international ñëpp a ciy jot. sur le plan sur le plan mondial. Mm. nit ñi doog a découvrir. Mm. liggéey Youssou Ndour donc c' était en 1989. macha allah mu nekk 1989 ak léegi ça fait plus de yàgg na. Mm-hmm. donc macha allah ba tey buñ ko tegee gis nga xol yi di set. waaw wéyli wéyli la kii lu wéy macha allah. waaw comme li ñu wax rek macha allah wéy na lépp nag. wéy na lépp lépp lépp lépp macha allah. yal na yàlla gën a wéral rek baat bi daal ba baatam bi def ci daraay wayal waaw mu ngi noonu la ba baatam bi def ci daraay wayal yi macha allah <laughs> waaw léegi nag xam nga nag dafa amoon loo xam ne waa Super Étoile ci loolu lañ jublu woon ñu daal di koy reporté mhm. ndax nag euh, li nga xamante ne daloon na suñu kaw mhm. léegi nag ñu ñëwaat ci li nga xamante ne rek la 2 février fas yéene rek daal di koy defee foofu ca Mbour ca stade ba euh, Caroline Faye euh, ñaatam parce que nag décès suñu yaay jooju di Mama Diaga mhm. loolu tamit am na parce que nit doo am naqar ba pare daal di dem ba te moom kooku bokkoon ci moom mu nekk nag acte bu rafet tamit ñaatam dëgg la acte bu rafet mi ngi njëkkee ci Wally parce que fu ñu jëlee porte-parole euh, di nga dégg mu ne sama papa Youssou Ndour euh, donc loolu tamit moom mu delloo ko ko mhm. ba mu mat delloo ko njabootu papa Thione Ballago Seck mhm. ndaxte Bessél bi nga xamante ne ni nattu bi dal na artistes yëpp bàyyi liñ doon def mhm. mais rawatina ki nga xamante ni nag mën naa ko wax mooy seen baay mhm. muy Youssou Ndour mi nga xamante ni euh, jëloon na fi ay date mhm. euh, ba def lépp lu ci waroon ba gars yi préparé yëpp donc date boobu nag moom la ñu yóbbu euh, le grand bal 2024 stade Caroline Faye ca Mbour le 2 février bi maanaam dinañ ko amal entrée bi 3000 5000 francs 10 mille fi ñu koy jaayee nag li nga xamante ni foofu la ñuy jaayee ticket yeeg yooyu changé wul donc voilà à la brioche dorée ak nga xamante ne fi nga xamante ne ñu fépp daal euh, TFM RFM ak ñoom seen waaye tamit ànd ci ay sponsoram euh, bu ñu jógee ci loolu également gis ngeen ni dafa gunge doomam yóbbu ko mu denc waajuram bu jigéen mu gunge ko ànd ak moom ba ci biir kër gi ànd ak moom non dafa rafet xam nga comme li nga doon wax léegi Sénégal daal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar koo xar ñaar Sénégal tuuti na tuuti loo xam ne ni euh, li waa yaayam ak jiloor jijak di wax rek jiloor jijak ak yaayam mm. ñoo bokk koo ci saaga rek sa bopp nga saaga mm. ñaari nit ñu jotante mu mm. nekk saaga keneen ki kee dem ne mu ne ko yow kan nga doon xeexal mu ne ko doomu diw mu ne ko est ce que xam ngeen li ngeen bokk ñu ne ko mm. ñu ne ko seen maam yee bokk ndey ak baay mm-hmm. kon nag looloo tax Sénégal aussi yaakaar naa ne ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mm-hmm. ba tax na rek noonu lay jaaree daal di leen may nag euh, euh, euh, concert Youssou Ndour bi nga xamante ne Sénégal rek mm-hmm. kon dañu dem mais Bessél Bessél li li ñaatam wax léegi loolu dafa jar a bàyyi xel àdduna amul solo. dëgg la loo gis ci nettali lay mujj. ana coon ana muuñu. déggoo ma ne la yëf yi gaaw na ba keroog jeudi xoolal rek. heureusement billaahi heureusement. Mm. dem nañu demin bu rafet. <coughs> bàyyi fi way wu rafet. Mm-hmm. ci jom. Mm-hmm. diine fulla fayda personnalité. donc euh, wax li ma doon wax léegi wax yu ñaaw yi nit ñi di waxante. wala di seedeel nit lu bon. Mm-hmm. ba ci. dese bi am na ku naan ku doon wax naan xaw ma kan li rey diw ak diw ak diw li rey jaaga jaaga yàlla moo ko rey nañu bàyyi waayi mu tranquille en tout cas xam naa bu fekkoon ni ay bu fekkoon ni tey rey nit xale la nañ ko jàppale ko kon xanaa Sénégal ñëpp jeex nañ de dëkk bi daal léegi man li ma fi jàpp mooy li nga xamante ne moo la war sa oh. diggante ak Bessél def ko te bul laaj kenn li la war sa diggante ak Joda def ko te bu ci laaj kenn c'est-à-dire def li la war wax li la war surtout nelaw mais bul bul déglu oh. te bul. waaw man daal ànd ko waxuma loolu. mais del bu yoroon ruux. waaw de xale la ah? bi nag kenn yoru ko de yàlla suñu ko. ba pare si dodo nit day moo yor moo yor dafa jaamam. moom bi muy bindi jaamam kenn fekkee ko kenn xamul yàlla fan la créé doomu aadama yaay ji nga xamante ne sax moom mooy ëmb doomam sax xamul loolu la ñuy demee rek senegal rek dañ dem seetaan yu si Samba madame Diajou vous êtes fatigué lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan la ñi ma bañ yéen a ko laal ci Sénégal mooy suñu gaal ni ngeen di déggee noonu lay bég ni ngeen di solal noonu lay sol te si ngeen dëkk di tey dugg naa ni Sénégal ni ngeen ko bëggee noonu lay dem afam ngeen muy seen tuuma foofu di ko jubal Sénégal Sénégal Sénégal mënul nekkee bu sew ba ma gën a wax du sew nekkee bu sew ba ma gën a wax du sew ma dul ceeb bu sew moom dafay dundal te dinaa leen Sénégal ma dul Sénégal Sénégal jukkal Sénégal lay delloo jukkal yéen lay delloo jukkal Sénégal lay delloo jukkal lu ma wax yéena fu ma jëm yéena ni ma bëgg ñam la ni ma mel yéena waral daal ci Sénégal dëkku kay dégaay du mooy suñu gaal aji julli jësi dem ba ko si aji julli jësi dem fu ngeen gën a Yusufa la nekk xoolal moo leen di Youssou wayam ane le le le ma way waxal ak Sénégal ma jigéen waxal man yéen lay delloo jukkal Sénégal lay delloo jukkal yéen lay delloo jukkal Sénégal lay delloo jukkal a ah, lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñam la ñi ma mel yéen a ko war a daal way Sénégal a dëkku gay gay mooy sunu tabaske noonu lay deme fi ngeen ko sëtte noonu lay deme den fen ngeen dëkk foofu laa dëkke bëgg naa leen la lekk ñoom gar gi dem ci kanam Sénégal bu dagat ci limal réew mi ñu sobal Sénégal ngir sa teel mu dëgër te ñëpp tee Sénégal tee mu tee di tee tee ko tee ko tee ko tee ko tee ko tee ko Jaya xombal dégg naa ñoom ñëpp actuellement ku ci na sa équipement. ma mi ngi toog ma petite Ba kooku nag mooy euh, yaayu bébé Daouda waaye tamit sama tante sama tante Fat Diallo ñoom ñëpp daal nee nañu actuellement émission bi la ñu nekk di seetaan te ku ci nekk yaa ngi yaa ngi yaa ngi enjoy di des dindi stress ci ci ci ci ci émission bi beseen waaw xam nga nag euh, dañu xewle te faaw ñu supporter suñu liooyu animation bi aussi animation support euh, supporter la war a doon voilà donc ñun tamit moo tax tey ñu sol suñuy blouson voilà euh, a a delluwaat xale tuuti yooyu <laughs> noonu ah def def def def lu ñu saaf. non mais yow defar na ne li nga ah? defee nag mooy mooy. non li nga defa dax yow yow li nga ah, defa dax ragal du jàmbar yaa la ah. wax lii ah. waaw wax lii. ma yoon nañu daal. dem leen fu leen neex sol seeni blouson. man ma dem ca eh, Proxaan Couture mu jox ma sama sama. am na ñëw tey dañoo bëggoon delluwaat am ay 5 ans 6 ans yooyu quoi. non defal quinze rek. non man 6 ans yow 15 demal kay man maa si 6 ans. fi mu nii waaw yaa ngi 6 ans. man 3 man tey dama bëggoon dellu 6 ans. xam nga pourtant gën a kii 3 nag. waaw parce que xam nga xam nga Amina daf ma daf ma daf ma. dama fa jaar mu jàkkaarloog man defanteeg ma. donc non amin amina poté sama rakk ji moom it nam naa ko. Mm. ah mm. Euh, chéri Mali Fall. Mm. waaw nam naa ko sama rakk. Fall nee na nee na suñu nekkee sax ñu ne Mali Fall da koo liggéey bëgg naa. waaw bëgg naa moo yem gis nga lu rayata mbuum dee ca ku weddi laaj gerte. xam nga. Euh, euh, ba wécc da ngay indi tamit na ko laaj. waaw na laaj gerte bi na laaj gerte bi nekk fii. <laughs> mais. adduna Pape Bool moo daan wax ne adduna groupe la ku nekk ak ki la a saf mais nit mën na bëgg besel te du ma bëgg nit mën na maa bëgg te du bëgg ñaatam nit bëgg ñaatam mais te du bëgg pap càmb càmb noonu la àdduna groupe la ku nekk ki la saf ku nekk na dem ca ki ko saf te bàyyi keneen ak ki ko saf la vie continue lool la mais euh, ndeysaan euh, différence euh, tachin maa ngi leen di béggee di kontaan ci ñoom bu baax a baax parce que dañ ma indiwaat démb xam nga aar dafa neex mm-hmm. aar dafa neex xam nga ñu jox la càkku aar mhm. ah, Proxaan Couture jox ma robe bu ah, ah jox ma dàllu ah, aar c'est magnifique c'est très bi yëpp ci ginnaaw gi. ni nga ah ginnaaw gi nii. waaw ah, ok ko. non yaa moo ko tey <laughs> <laughs> kon nag euh, jërëjëf Youssou Ndour euh, ci euh, li nga xamante ne rek moo nekkoon le premier janvier. dëgg la mu nekk nak événement boo xam ne ñëpp rendez-vous la ñëpp retrouvaille la aussi ñëpp moom la ñuy xaar Khady Mbaye loo ñuy indil tey. tey sombi gerte laa indi. Mm-hmm. ànd ak sama méew. daa di laal waaw méew. ñoom yow mënoo ko Awa Gaye moo ko mën. mbéew ak ak ak ak mais yow mënoo ko. besel mënu ko waxal waxal. mënu leen meew normal. waaw waxal boo leen ñëwatee dama leen di jël teg fii. ak mais yaa bëggoon ñu mën ko waxal léegi. méew. méew. ah mënoo yow yow toogal abal par exemple chaise. méew ah méew. aw ma ñaari chaise indil ma deux chaises. néew da nga koy baaral ñu mën ko ni ko waxee nii la da nga koy baaral ko yow tamit ngay tal besel néew da ngeen koy xëcc. non non non. xam nga way ci dënn la war a jógee laaj ko yuusu da ngay defar baat bi. defar baat bi fii xëy na yow da nga fàtte ne man sama baat dafa sew baat waaw voilà léegi yow xëy na yow léegi man su ma defaree léegi nga defar sa baat xëy na. néew suñu baat dafa sew. eh Xadi Mbaye loolu la méew. d'accord kon grand xoolal dafa sew mënoo fexe ba mu ba mu dëgg <laughs> meew d'accord kon ma wax meew meew waaw kañ ko xam juróom-ñeent nekk jàngal fukk ah, sama yoon new ci yow da nga am benn base boo xamante ne ñun amuñu ko <laughs> waaw waaw waaw loolu de dëgg la moom ah, seetal li ma la wax gars yi dañuy wàññi sama sama micro bu bu bu ah. ñeneen ñi di wax ñu wàññi mais bu dee bu ma dee wax man gaa yi dañuy wàññi laajal même tournage dañuy wàññi dëgg la su ñeneen dee wax ñu daal di yokk dëgg la loolu yàlla moo koy def ci doomu aadama méew. méew dama indi sama fromage. kuy ma waxuma. <laughs> wàccee di nga xam ne lépp dëgg la. léegi loo indi. sama sama sama sama sombi gerte. waaw bu toj. daal di waaw daal di def sama fromage def sama meew. puura meewu poudre. Euh, euh, ah. daal di def sama meewu ndox. Mhm. laal sama tuuti soow. Mhm. moom laa indi tey. Mhm. waaw moom mooy suura gerte. cuura cuura gerte waa Kaolack eh, waa Kaolack loolu Saalum man nag sombi gerte la ma ajaratu ndey ndee la cuun jàng lool mm-hmm. waaw sombi gerte muy ceeb bu dijj bi <laughs> waaw ñi dañuy wax sombi gerte ñuy wax cuura cuura gerte waaw préféré di ko wax gosi ah, gerte donc euh, waaw mu ngi noonu nag bambara yi aussi pareil voilà donc euh, nekk na plat boo xam ne yaakaar naa ne tey Sénégal plat bi ñëpp ko xam sombi gerte waaw sombi gerte mais ceeb bu dijj bi laa jël ci ndumbe daal di jël noof laayu ndumbe jël meewu ndumbe jël soowu ndumbe jël fromage ndumbe ak meew en poudre ndumbe lépp aujourd'hui ndumbe ndumbe la ca euh, euh, ca ca ca rond point Zac Mbao sortie neuf ndumbe moo ma gunge tey ma daal di ñëw rek présenté li nga xamante ne moom mooy sombi gerte après ñu décortiqué ah non décortiqué ah ma décortiqué donc sombi bi nii <coughs> mhm. damay daal di def sama meew mhm. meew en poudre mhm. may def suma tuuti meew mhm. daal di mhm. xolli sama fromage def ko ci ñaar rek laay jël damay bañ mu mu ne nàkk defuma ci beurre parce que gerte dafa am diwlin waaw léegi daal di def sama meew daal di def sama meew su ma defee sama meew daal di jël li nga xamante ne moom mooy sama soow. ay ñamu tuuti soow bu ko toggee damay yar. gis naa li nga ne tekki di looloo ma jaaxal. ne ay ñamu sukar c'est pas ngi nii. Mhm. daal def sama soow bi gerte rek. def naa sama suukar nag ba pare. def sama sucre vanille. def sama fleur d'orange ak tuuti muscade. Mhm. am na nee naa la ñamu soow du sama lekk. waaye mun naa la ñamal ndax xam nga. <laughs> bés dimbali ma rek ngir yàlla li nga wax na nekk ci yow waa léegi yëngalal. yëngalu ma de. Ah, non yëngalal ma sama jikko laay woneeti rek. léegi Bessél. Hmm? sa bos nee na. Hmm. c'est un plat d'origine gambien. ku wax loolu. ah waaw wax na dëgg. ku wax loolu wax na dëgg ne ko d'accord naa te bu ma paree sax moom laa koy yóbbu. kan la ne ko ñu daje ca rond ba. ca rond point rond point TFM. fa ngeen di daje. waaw fi ñuy daje ne ko daje ba su besel defal ndànk Xadi Mbaye sama yaram dafa man ñamu soow du sama affaire waaye mun naa ci guux ama problème man ñamu soow bëggoo ko bëgguma waaye nag mun naa cee guux leen na ñamu soow neexu ko waaw waaye mun naa guux waaw mun na ñam fromage bi est-ce na waaw defal ndànk rek muscade am na fromage aussi. waaw muscade baa ngi xeeñ ak fleur d'orange. mu ngi xeeñ mu ngi xeeñ ak vanille bi. jooja muy baax na. yaram jooja mbaa gerte bi bëri na duma bi bëri na. non dama def genn waa liibaru ceeb. def ñaari kilo jën ak lii bëru gerte gan waa parce que il faut gerte bi daal ah, bëri nga xam ne da ko ciy sentir man nag su ma ciy doj kii yu ndaw yu gerte yooyu man ca la ma dàq moom la moom la yu mel ni yu xaw a ñor xaw a ñor te ñorul ko yéeyaale loolu di ko ko tëccaale ay waay yàlla bu mu yàlla bu la yënga la waaw mi ngi ni tojoo tojoo tojoo bi de jeex na si baa ngi man bugguma ñamu soow waaye ñamu soow man moo ma bëgg. ah ñamu soow moo la bëgg. waaw te bu bëgg see il faut mu ñam si. waaw soom bi gerte bi. xoolal ni ma ko yëngalee ba mu jaxasoo parce que yow ni ma ko yëngalee woon jaxasoowul dafa. Aliou may tooñ. ngi nii sama soow bi gerte nga dem jaxase ko yëpp. doo ko doo ko tibb soow kat teg ko soow bi na la ci côté bi. Mm. balaa caag ma dajji meew dolli waatal la. en tout cas daal sombi gerte bi mu na ko amal bii xeetu guub. waaw nag bi mu waxee ni dafa am muscade bi ak anaan kii bi euh, fleur d'orange bi mm. ah macha allah franchement. Mm. Euh, xam nga lekk yi lekk mag yi njëkkee la woon. Mm. mu nekk plat boo xam ne plat bu am solo la euh, plat boo xam ne sax dafa riche. rawatina ci xale. Mm-hmm. xale yi nga xamante ne dañuy commencé di lekk ñu leen di jox ay sombi gerte yi dafa baax lool lool boo xoolee mag yi njëkkee moo tax seen yaram yi dëgëroon seen yax yi doon jox bébé yi mm-hmm. ba ñu màgg bu ñu màggee aussi ñu ko mais lekk ñun léegi moom sama genre gi mm-hmm. Mm-hmm. mooy loolu ñun lekk yi moom farataal sa bos ba tey dellu na nee na plat gambien la mais en même temps nee na ku koy defar bu ko defaree noflaay nee na nga jël gerte dëbbal ko sa bopp si ak ceeb bi ca gën ga nee na ca la ca la dàqee daal waaw loolu mooy cere ju neex ca la diw dàqee waaw ñoom curaa gerte non man sama yaay ñaari façon la ko doon def. waaw day jël ceeb bi. dëbbaale ko ak gerte. voilà mais des fois mu jël ceeb bi. sombi ko ba nga xamante ne ceeb bee ngi waaju a ñor. mu sotti gerteem. mu ñoroon ko. waaw fekk dëbb fekk dëbb dëbb na ko ba pare. moom ñaari façon la ko doon toggee bii dëbb des fois mu dëbb. man moom des fois mu bañ a man moom bii fii Dakar man Dakar bii moom fii laa ko xamee mais ñun bi ñuy def d'habitude Kolda. Mhm. da ngay jël ceeb bi ak gerte bi ngay boole. dëbb ko daal di koy dëbb. ceeb bi ngay njëkk a dëbb xam moo gën euh, da nga koy da koy surtout ñun nag xam nga ceebu mbay mi. day dem ba nekk pat dañ ceebu mbay mi lañ koy toggee da nga koy togg ba nga xaman da nga koy dëbb ba nga xamante ne. boo xamee gerte gi bi waaw ba nga gis dawlin bi sax ci dëbb bi boo paree nga bàyyi ko ndox mi bax nga daal di koy suur nag di ko yëngal ak ba dem ba day pat mais kenn ko ñun ñun xam nga ñun nag xanaa peut léegi génération mais samay ñoom maam bi ñu ko doon togg hmm. ñoom dafa ay cin spécial yoo xam ne moom lañ ko doon toggee ay bàq yoo xam ne moom lañ ko doon yëngalee bu ñu paree aussi dafa am ay leket yoo xam ne ci leket yi lañ ko doon toggee euh, voilà mu ngi noonu nag mu nekk loo xam ne lu lu am solo la mais togg togg bu riche la te hmm. lu neex la te hmm. lii ku ko ndekkee mën na la téye lu yàgg-yàgg doo doo gaaw a xiif am na am na euh, xamul mu ko nu mu ko mënoon a tuddee. Mm. am na lu gerte lu lu xar yi daan lekk. Mm. damay fàtte tur bi sama papa da ko daan indi da nga koy dëbb ba mu mel noonu. Mm. parce que daan na ko indi. rakkal rak jërëjëf rakkal. Mm-hmm. moom nga daan jël. Euh, euh, am pëllaa dañu am da nga koy da nga koy dëbb parce que rakkal sama papa da ko daan indil xar yi. dëgg la mais ñun balaa koy xar yi di jot. dañ ciy def lu ñu mën. la daan sama yaay nag noonu la ko daan dëgg da ko daan dëbb ak ceeb bi. Mm-hmm. Euh, gerte geeg ceeb bi la daan boole ba mu mel ni rakkal. Mm-hmm. mu soog ko teg ci ceeb. xam nga day day mel day dem ba jàpp pat. Mm-hmm. waaw parce que li nga kesal doon wax nii naay bi. diwlin ji day génn. génn diwlinu gerte bi génn. moo tax daal Sénégal am nañ suñu loo xam te ne ñoo ko moomal suñu bopp. ba pare riche. parce que gis nga li ci besal wax yëpp xale yi dañ leen ko daan jox muy am lu muy def ci ñoom. et je sais que tamit jigéen bu wasin jigéen jigéen bu wasin ak moo baax ci moom day day tax ñi moonul am soow da ngay am soow loolu yëpp lu am solo la nañu delluwaat daal démb démb daal bu dee da bëgg am yaram aussi mën nga koy di ko lekk ah, waaw dëgg la euh, sombi gerte daal xam naa ne sama mbokk bambara ak sama mbokk soninke yi kontaan nañ ci torop parce que ñoom lii seen euh, plat waaye nag xam naa ne tey moom ñancoo bu ñuy seetaan tey ñancoo ñancoo xam na lii dina ci kontaan ay waaw dina ci kontaan xam na cuura gerte bu baax te bokk na si ah. ay plat préféré hmm. sombi gerte waaw xam naa ne bu tàng jër bi daal bay saxaar nga toog rek boo koy lekk doo toog ci chaise doo toog ci fauteuil da ngay toog mbartalu mm. daal di ah, wàcce say tànk waaw daal di bàyyi say tànk mais doo doo kemale say tànk da nga koy ràcc bi waaw léegi ràcc bi pour lan la ci mooy day tax mu dugg ci ci ci organe yi non ci feeling bi la rek <laughs> non non yàlla gis nga xam nga xam nga sax gis nga Khady Mbaye da wax lu am solo mm-hmm. te ñun des fois duñ ci bàyyi xel mm-hmm. gis nga tey boo demee pays asiatique yi mm-hmm. suñuy lekk dafa am toogaay boo xam ne moom la ñuy toog ñun des fois ngay lem sa biir di lekk mm. loolu c'est pas wala nga nga booy lekk danga war a droit lekk surtout voilà da nga da nga a ba nga xamante ne la ngay lekk dafay am facilité nu muy jaaree ci biir nu muy wàccee et loolu c'est important aussi na ci nit ñi mm. na am ay chaises yu adéquat ak yoo xamante ne c'est même pas adéquat mm. lan moo tax ma lekk ya doon teg ci suuf xale yi ñu teg leen lal ba sa supp ah, su toog loolu c'est dafa waa tey bool waa fii def sa baara noppi te doo doo dem ca diggu ndab la. waaw ba pare doo seetaan télé. te doo laal ndawal la. doo laal ndawal la dañ lay tegal man de gis naa koo xamante ne ay loxo yi moom yàq nañu ci. noonu daal boo tegee boo boo laalee ndawal ci diggu ndab. Mm. wala nga wax sa bëñ départ. man loolu xaw ma kañ lañ ciy delluwaat ah, parce que xale yi parce que tamit xam nga li ñuy wax fii yëpp ak leneen li ñeneen di wax feneen <laughs> lépp mën nañ koo war a mën a boole mm-hmm. ah. xool lu ñu ko defee ci bopp xale yi aussi na ci solo kon ñaatam noonu lay defee rek si suñu maye bi nga xamante ne rek uh, dañ koy daal di def uh, dimanche bu jot nag El Hadj Pape Cheikh Diallo daal di def tirage bu mag boobu ñu may leen nag ci grand lot yi nga xamante ne moom moo fi nekk moo tax ma leen di fàttali numéro téléphone yi woote leen ñaatam yaramam dafa tàng parce que dañu bëgg gaaw tey dem jàkkaarloo Euh, télé bi jël mm. bi jarte xadi mbaay bi di toog di seetaan match bi di ko lekk ah, loolu tamit da ciy neex mm. euh, kon nag 88 euh, la 628 20 20 88 628 22 22 88 628 72 86 88 676 05 05 88 628 65 65 88 88 676 06 06 ci numéro téléphone boobu dañuy daal di ànd ak kooku di chanteur boobu di El Hadj Diouf ñu dem seetaan ko daal di dellu si. mais mais Bessel euh, man jël naa sama. kii jël bi yow nga jël benn ku ne benn man jël naa sama bos merci merci. lii lan la meewu ndumbe. néew mu ngi def. néew mu ngi def. ñu dem seetaan yiwaan parce que temps yi mu ngi def sport macha allah waaye xam naa dërëm bu fi nekkoon moom. dërëm. sportif la. laay laxee la bu mag a mag. dërëm déedéet xanaa gisoo bindu dërëm. non macha allah. boo boo boo boo boo boo sportul guddi yi ñu toog du baax. lu baax de. xam mhm. naa dinaa dem def yaa ko ci teg bu baax a baax. waaw bu baax xam ko rek pour forme bi. dañ koy def parce que c'est bien pour la santé psychologiquement également da lii ñuy dund nii muy Sénégal war a jouer ngay stressé. Mhm. sport boo ko defee ba pare da ngay reer ba suur naan say boo du bien. du bien. merci beaucoup de mu nekk woy boo xam ne tamit ñaaxaar gaynde yi la supporter gaynde la pour loolu rek suñu gaynde yi daal di am ndam xam ngeen Sénégal nag moom bu Sénégal ay ku nekk lu muy def rek da nga koy daal di bàyyi. Mhm. Euh, kon noonu lay jaaree rek ndey sanam heure bi amul jàmm amul salaam kooku di yaayu dërëm nga koy nuyu lu bëree bëri. yow ku sam di ñaanal gaynde yi daal di nuyu tamit kooku di dërëm. Mhm. Euh, moom it ma koy jaajëfal rek euh, lu bëree bëri waa borom baax. xam nga dafa wax lu am solo moom El Hadj Diouf. Mhm. nañu rek matul 3 jours. ngeen mu doon nit yëpp doomu aadama. ku respecté doomu aadama. Mhm. ndax dañoo toll ci jamono joo xamante ne bu ma dee wax rajo sax fook nga ne koo gis yaa ko supérieur. Mhm. wala ngay génn ci tiktok bi foog nga ne ko gis yaa ko gën wala yaa ko supérieur. waaw ni ngay euh, waxee nii tamit ni yaa ko gën yaa ko supérieur tamit. <laughs> li tubaab naan la simplicité vaut la la simplicité euh, euh, c'est de l'art ba tey mais mu wax lu am solo besel ñaatam mhm. fulla ak fay mbaa xam nga ne lu waay di def ci àdduna boo ci amul fullaak fayda waaye di nga mm-hmm. lu waay di mën a def ci àdduna dëgg la boo ci amee fullaak fayda mm-hmm. yàlla teg ci yow loxo dëgg bu dee lu neex yàlla dëgg la nga am ci fullaak fayda waxuma ñi nga xam ne dañuy gis nit rek xëcc ko ba mu ñëw ñu rendi mm-hmm. wala ñu jël nit agressé ko wala ñi nga xamante ne dañuy teg ci deru nit ñi lu ñaaw wala lu bon waxuma ñooñu mais dafa am ñoo xam ne seen liggéey gis nga jaay gerte ak jaay siddéem man est-ce que xam nga ne jaay naa crème ah man mi taxaw fii de jaay naa crème glace taxaw ci takk sama blouson di yéeg ci kaw. même man de des ma sol caaya di ko jaayanteeg ñoom. man de nawetaan jaay naa ci crème glace su ma bëggee te waa Kolda ñi may seetaan sax xam nañu ne waa ASC jàmbaar. voilà man ak euh, Mayen Thiam Mayen Thiam maa ngi koy nuyu au passage sama ah, ah. doom day jooju. muy jaay cuuraay marché Tëngéej moom yàgg bari jom. man may jaay crème glace. ak Pa Omar Dieng donc nit loo am fulla ak fayda. gëm ko da nga ciy dem da nga ciy teg yow Khady nga ma fu sori ndeysanam ah, ah. ak euh, pa boobu waa Kolda ñu ngi may seetaan xam naa bu pa bi rek ne Maodo Franci Maodo Franci benn pa bu tuddoon Maodo Franci lañ ko doon tuddee euh, mu doon jaay crème yàgg naa di jaay crème glace euh, vacance voilà donc mu nekk loo xam ne Khady ma mm-hmm. yóbbuwaat si feneen mm-hmm. te waa Kolda ñu nañ bu baax besel besel man sama yaay restaurant la yoroon macha allah restaurant la yoroon man bi ma juddoo laa commencé jaay mburoog ton ak mayonnaise. ma bëgg ak di togg ceeb di ko yóbbu Sococim. Ah. sama nijaay ndongo. maa ngi koy nuyu au passage Pagay Demba mi ci néegu Yoff moo tax dara niilul maa ngi togg fii tey. waaw loolu la de ñaa. waaw euh, day revenir pour rek li ngeen di wax pour dëggal ko mm-hmm. parce que xam naa ne ñun bu ñu nekkee xale ñun ñëpp ku ci nekk parce que ñun ñi train bi moo doon jaar suñu buntu kër. Mm-hmm. donc jaay nañ crème glace taw oh. màggal gi tamit. boobu autoroute atayage amul. tali bi lañ daan jaar. je pense que loolu moom boo ci amee fulla am ci mm-hmm. fayda leneen moo la ciy fekk. ba dem fa nga xamante ne mooy Canada. li ko yërmande ak fecc te ba mu demee foofu moom ak frère am frère bi dafa mujjee bàyyi mu gëm boppam ah continuer moom kese premier ah album ko tuddee ak si deuxième oh. album bi mu daal di koy génne troisième bi toj ba léegi nii mi ngi ñëw Sénégal mm-hmm. euh, te bi ñuy euh, inauguré sax suñu stade bu bees bi bu Abdoulaye Wade bi mm-hmm. ñëpp dañ doon xalaat El Hadj mu dagg bi ñëw ba Sénégal donc mu nekk koo xamante ne réewam réewam daf ko jaral lu ne te biñ koy ràññee boobu fekk na mm-hmm. bitim réew tëgg na fa loo xamante ne ah am fa ay raaya yoo xamante nekk rek que muy Sénégal que muy à l'étranger fu mu mënti nekk jàppal fullaak fayda xam ci li nga nekk bëgg li nga nekk gëm ko mm-hmm. yàlla defal na ci jàmm dëgg la fullaak fayda moo tax rek dañuy dem seetaan ñaari génération yu bokk ñu def benn jiyoo bu doy waar kooku di dib ak kooku di ajaratu Kiné la Mamba Mbax ñaari génération yoo xam ne bokkuñu. Mhm. mais macha allah jiw bi ñaatam doy na waar de. macha allah gis mu nekk xale boo xamante ni gis nga ni ko ràññee ci euh, le premier. ak yeneen i soirée yoo xamante ne ñun ñii sax di groupe Futurs Médias ak li mu àndal bànqaas yi euh, delloo nañu njukkal ci benn way donc mu nekk koo xam ne ànd na ak Aïda Samb ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais man je ne pensais pas que ni euh, ajaratu Kiné parce que comme ni nga ko waxee même bu génération yi bokk bokkoon sax mais la ñuy def bokkul kay nga ca traditionnel pur traditionnel euh, kii nekk ci rap muy beneen musique boo xamante ne bien vrai que ñu ngi koy méngale taasu mais bokkul donc je pense que artiste mooy lii nit la tegal rek war nga cee mën a teg sa baat teg ci biit boo xamante ne ku ko seetaan mais li ma doon wax léegi besal mooy qualité wu vidéo yi ak image yi gars yi xewal leen ah mu nekk qualité image yoo xam ne ñaatam yu doy waar la mm. parce que aussi il faut que gars yi bàyyi sa xel comme li nga wax mooy te tamit loolu moom moo mun a jaay li nga xamante ne voilà moom mooy woy bi parce que nit ki sax bu comprendre parole yi mu seetaan li nga xamante ne moom mooy vidéo bi ah gis image ah loolu da koy gën a poussé tout le temps muy dem di ko seetaan ba mu mun a capté li nga xamante ne Khady Mbaye moom mooy woy bi xam nga ndeysaan euh, Ajaratu Kiné Lam man man dama ko bëgg ndax jikkoom ba pare ndax da doon da doon da doon mujjee sama sama cousine direct koo xamante ne yëre yi ci sama yaram moo ko moom muy ajaratu umu xayri caam mais pëjëg rafet ñu jàngal ñu bari mooy buy tukki day jël doomam ñoo jox ko umu xayri caam sama cousin boobu ne ko yow laa ci wóolu ban wujj moo koy def ak moroomam bu baree xaw naa raam euh, bërki démb bu ma dajee ko moom ci xewu nday ngoom xewu xewu Iba Samb sama doom jooju doon takk jabar doomu ajaratu nday Samb ak dade Samb mais ba bi ma gisee billaahi la ma yëkkati loxo la la yëkkati loxo ma yëkkati sama loxo comme may xale ma dem ba ci moom nuyu ko mu yëkkati fukki junni jox ma ne ma yow yow yaay sangu um xayri caam kooku nga xam ne dama ànd ak moom di sëy ak ndongo caam te dara lu baax kon na ku jéggi di rafet àdduna amul solo tey ndongo dem na ñoo fi des ak njaboot yi yàlla nañ fi yàgg ma naw ko ci loolu ma ma naw ko ci loolu parce que nit boo fekkee sa moroomu artiste ci bërëb jox ko cër respecté ko ndax li muy doon mag mag mag jox na ma cër bi ma delloo ko ko nag vraiment may wax ne mën naa ànd ak ku nekk moom ajaratu ne laa ndax fa muy woyee la macha allah noonu la ñuy demee rek tey danaa leen dañuy supporter suñu lion yi encouragé leen ci woy bu neex boobu nga xamante ne moom tamit woy na ko suñuy gaynde ñaatam dëgg la ren sax loolu laa doon wax nee leen parce que bi mi ngi ko génne woon euh, yële passé mais je pense que artistes yi comme ni ñu daan def aussi gis ngeen ni à chaque fois booloo àndandoo génne mais au fur et à mesure lion yi di dem artistes yi di gën a am confiance ci ñoom euh, di leen sargal euh, mais également di leen encourager di leen ñaax ngir ñu mën a jëm ca kanam parce que jongante ci yoonte surtout football Bessél dafa nekk loo xamante ne lu doy waar la da ngay dem ci jongante gis ñoo xamante ne joueurs yi ñëpp a tegoon ci ñoom ñu jékki-jékki nekk ca ginnaaw nga jékki-jékki koo xamante ne xalaatoo ko woon mu ñëw ca kanam donc man maîtriser wu ma football mais je sais football daal lu doy waar la kon nag euh, sànq ba léegi maa ngi leen doon naan tey moom xam naa si portel yooyu <laughs> moo ci jàpp ma ma xaw fàtte téléphone bi waaye damay daal di ñëw rek fàttali numéro yi jël ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si ligne bi euh, daal di jaajëfal suñuy partenaire bijouterie la solution ñoom leen gis ci écran bi bijou yanj yooyu mhm. euh, yéen lañ koy may ànd ak waa Kabirex ci téléphone yu yanj yi ak gazinière boobu ak li nga xamante ne rek moom mooy frigo boobu noonu la ñuy demee aussi ci Adja Oumeliko ci meuble yu rafet yooyu chambre à bi nga xamante ne ñun ñëpp bëgg nañ ko numéro téléphone yi nag di 88 628 20 20 88 628 22 22 88 628 72 86 allo allo allo allo. soxna si est-ce que mën nga wax ci kaw allo. allo. déggante bi moo leerul. bu fekkee mën nga gën a yëkkati rek euh, sa baat ñu mun laa dégg parce que dégguma la allo. allo waaw maaleykum salaam soxna si danga def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax foo ñuy woowee. ah. parcelle. ah unité 26 ana waa unité 26. waaw ñu ngi fi mbaa yéen a ngi supporté lii bu baax a baax. waaw alhamdulilah tey kon euh, xam naa déggante bi leerul li may def rek mooy ma bàyyi Eva la ñu daal di lay may fukki junni dégg nga. voilà euh, donc bu fekkee amaat na keneen ku nekk si ligne bi rek ngeen jox ma ko déggante bi sànq leerul woon bu baax a baax dañ leen di ñaan rek boo woowee ngeen xaw a yëkkati baat yi tuuti ñu mën a déggante euh, comme ni ma ko waxee rek euh, maye nag neex na at bu jot dañ koy def TFM groupe Futur Média sax laay wax ñu daal di teg li nga xamante ne moom mooy 300 millions ñu fas yéene rek daal di koy joxe ñaata loolu neex na de. dëgg la neex na torop Bessél mu nekk loo xam xam ne actuellement ñu ngi ci quatrième édition mu nekk loo xamante ne lu ne gulet te ku ci nekk rek yaa ngi ci gis sa bopp ka muy rajo bi ka muy télé bi jamono naqadi na naqadi boo xamante ni tey nit nga yëkkati fukki junni 200000 300000 dem ba 500000 ba 1 million sax ñu koy maye euh, yaakaar naa ni loolu lu lu lu lu neex la ci xol waaye mm-hmm. euh, nag ñoom ñooñu ko ñooñu ko ji mm-hmm. parce que suñu digganteek ñoom altine ak talaata la bés mënu fee dox mm-hmm. donc ñun ak ñoom la ñoom ñooy jël ñun ñooy nangu waaye tamit ñoom ñoo ñuy jox ñun ñooy jël donc je pense que joxante bi rek la parce que yëg bi rek kenn mënu koo fay delloo teranga la rek te remercier suñu partenaires yi bu baax a baax. ñoom ñu merci beaucoup donc noonu la ñuy defee rek daal di ñëw ci ki nga xamante ne rek moom mooy euh, Youssou Ndour loolu nga xamante ne war naa xewee foofu ca Mbour le 2 février euh, ci euh, loolu nga xamante ne rek moom mooy stade Caroline fay bi bu fekkee rek mun nga ma ko indil hmm, Pape Samba soirée boobu. billets yi 10 la 5 000 francs 3 000 moo ngi noonu gis ngeen ko le 2 février foofu ca stade Caroline Faye euh, ca Mbour entrée 3 000 5 000 10 000 VIP ndaxte nag dañ ko annulé woon waaye nag comme te na gars yi ñu ko doon préparé dañuy delloo mbuum ca mboy mboy ba rek Youssou Ndour fas yéene daal di dem yow moom Mbour soriwu la. yëpp a xippi la rek nga yegg Mbour soriwu ma sànq da ngeen doon wax ci Queen Biz macha allah moom it yàlla ko yàlla la mm-hmm. fay na ba marqué empreinte am. Mm-hmm. la ndaw la. te li muy def am na solo lool heure bu génnee euh, son wala mu génnee euh, li nga xamante ne moom mooy kii yëpp gaa yi def no comment macha allah ndax mën na li muy def. Mm. beneen bi mooy euh, Youssou Ndour le 2 février. Mm. defe naa dañu def stade Caroline Faye. waaw de de Mbour ah. entrée 3000 francs 5000. Mm-hmm. daal di def VIP 10 mm-hmm. mille bu ko kenn raté mbaa di nga dem. aywa ah, tamit. ñaa estimaire bi dem ah, ok kon kon kon nañ leen dem xam naa ne ma doog awagee dinañ dem. Ah, ba pare Asuña. nee na jënd na 30 billets. moom ak euh, ak euh, euh, bu mu nekk nii dañ koy maye rek gratuit ku bëgg rek ñëw ñu jox la nga daal di dem ànd ak moom. voilà balaa rek ñuy tàggu parce que liñ desee ci waxtu dañuy demaat ci El Hadj parce que El Hadj Diouf dafa def ambiance def lu rëy nag euh, si euh, woyam carrière am si li nga xamante ne rek moom mooy euh, supporter donc gaynde yi muñ dañuy dem seetaan El Hadj Diouf encore daal di dellu si waat. waaw xam nga lébu laa nee naa la. Adja maam Ciss Fallay sama yaay. ak Adja maam Ngoné Cissé. Euh, ak yaayu maam Kumba Ndoye il faut que ma doon lébu. Mhm. donc xam nga ko juddoo Tëngéej. Mhm. màggee Tëngéej. Mhm. ah euh, euh, il faut que nga ah. yaroo Tëngéej il faut que nga doon lébu jëkkër Tëngéej. mbaa xam nga ne gumbe rek laay def. gumbe rek. benn yoon naa ma a. yooyu tam nag man maam Kumba la bàyyee sama maam. dëgg la waaw ah, yof laa juddoo. fi la sa maam juddoo màgg fi yaroo fi diggante Yoof ak Tëngéej waaw donc kon su ma gumbewul bal ci sama kaw mais gumbe naa mais ñeneen ñi it gumbe nañu lu tax nga jiñ ma ko man rek euh, Khady Mbaye ok hmm, bismillah mhm. euh, waa Janoo Couture ñoo ma jox vaisselle yi maa ngi leen di bëggee sama doom jooju Ngoone Thiam ma nga foofu ca rond point Barthélémy Dias macha allah 77 395 14 13 ah non non non janoo couture janoo couture euh, proxaan couture laay def ba pare def janoo couture proxaan couture moo ma ñawal yëre bi numéro am 78 388 05 19 ku bëgg ci yére bi demal ca rond point cyprès ma nga fa di ko rëtëmbal macha allah Euh, ki nga xamante ne euh, ndeysaan moom moo ma jox gerte gi ma toggee kooku moom it ma nga ca diwaanu Zac Mbao ndumbe nokkos ndumbe épice waaw moo ma jox gerte geeg meew geeg li ci dem yëpp mhm. kooku numéro am ku ko soxla dangay daal di def 77 527 20 54 moom mooy numéro euh, ndumbe Amina mi nga xamante ne moo ma jox nag collier bi macha allah mi ngi fii ci diwaanu biir Ndakaaru ci clinique Euh, clinique bi ma juddoo man euh, dama koy fàtte. Ah, ndeysaan clinique clinique euh, Rabi. Ah, clinique Rabi waaw mi ngi côté boobu. ci jëppal xale bi nga xamante ne demul demul États-Unis di añ <laughs> waaw fa juddoo. Ah. ndeysaan macha allah numéro moom Amina da ngay def 77. 395 14. def treize. boo bëggee ci collier yi moom dala koy daal di jox jox na ma nag ay dàll ak yeneen yoo xamante ne surprise lay doon il faut ma ñëw teg ko ci table bi. waaw euh, di euh, di bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp. Diano euh, Couture numéro am 77 555 61 26 moom mooy borom vaisselle yi. di nuyu ñëpp nag di kontaan ci ñëpp di leen wax ne leen tey entraînement nañu dëgg. non mbaa xam nga ne jamono ju ñu toll kooku entraîné wul. perte nga. yàlla na Sénégal am ndam. amiin yaa rabbi ma belle Ndiatta Tamba lan ngay tàggatoo c'est un plaisir de partager le plateau ma belle. partagé merci aussi euh, pour ñun kay nañ ko remercier rek. voilà <laughs> merci à toi aussi dama ko naroon fàtte voilà mun nga ko remercier après mu ñëwaat ci. merci beaucoup Mao Cissé. Mm. donc ci moom la euh, ci moom la tenue yi jaar. dëgg la ko sol mais merci beaucoup di remercier félicité waat El Hadj nit ki loo yëngu-yëngu tamit bul fàtte fàtte di delluwaat eh, ci sa cosaan eh, gis nañ ni vidéo bi HLM la ko defee ba HLM la ma ciy nuyu euh, Marie chérie monsieur Dieng fii ci groupe Futur Média ndax son oncle nijaayam la mm. donc El ñu koy félicité encore une fois bàyyiwul mi ngi dugal loxoom mm. saa su ne ci euh, Sénégal rawatina gaynde yi ngir encourager leen encourager nag gaynde yëpp remercier ñëpp tey wax ni rek nañu dem ak force nañu pousse suñu ay gaynde ndax loolu la ñu am ñu les supporters ñëpp on est fiers d'être des et fiers de nos joueurs mm. tey jii fu ci Sénégal Sénégal aussi ñun dañuy kontaan ba ci àdduna bi yëpp ndax wan nañ ñu ko ci doole wan nañ ñu ko ci football également Bessel comme ni nga ko waxee léegi blouson yi nga xamante ne moom la ñu sol nag ki nga xamante ne moo ñu ko jox muy le petit promoteur Sandaga la nekk le petit promoteur mi ngi Sandaga rawatina Petersen mi ngi biir Petersen képp koo xamante ne bëgg nga si mën nga dem ci 77 193 96 29 77 193 93 96 29 dinañ ci dellu siwaat incha allah ci suñu ay page et ma def ko ci statut yi gars gis ko Bessél ndaxte teranga moom teranga rek moo koy faj donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax tey wax ni euh, allez les lions euh, yàlla nañu yàlla jox ndam li ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup kooku ma belle Niatamba mhm. moom mi nga xamante ne ci moom la jaar ni ko ñaatam waxee rek mu ngi foofu ca euh, Petersen fekk leen ko foofu jeune promoteur Ah, nekk foofu ca Sandaga numéro téléphone am di 77 193 96 29 193 96 29 woo leen ko loolu mu daal di leen defaral blouson yi couleur yëpp am na ci. loolu leen si bëgg rek waaw dafa duan ah, dafa dafa neex nooy nepp ah, macha allah donc ñu koy remercier bu baax a baax di remercier ñi nga xamante ne ñoom laa bokkaloon plateau bi mais belle dame jaajëfal sénégalais yi waaye nag jaajëfal la suñu gaynde yi di leen wax rek euh, ñu ngi seen ginnaaw di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xamante ne moom moo am ndam te moom moo koy maye yal na leen yàlla may ndam ci barke Seydina Muhammad yal na leen yàlla may ndam am bu sedd guy ndam bu neex ngeen gagné Côte d'Ivoire daal di jël nag mocc Euh, nu mu tuddati éléphant yi ba ñu. tëdd ñeneen ñi ci des. ah ñu damaate ñeneen ñi ci des. xam nga moom éléphant moom ku ñëw moom dëgg fa yàlla damm éléphant daar jàll. waa macha allah donc yal nañu ko yàlla defaral ci mbaaxam ak kattanam ci yërmandeem ak mën-mënam. kon nag ñu ngi seen ginnaaw population bi yëpp ñu ngi seen ginnaaw di leen supporter yal na leen yàlla may ndam jaajëfal aussi nag sénégalais yëpp ñi nga xamante ne jël nañ seen billet jël seen lépp daal di fay dem supporter suñu gaynde ci mel ni nag ñaa xarañ loo jooju eh, ci mayo bu rafet bi nga xamante ne jox nga ma ko eh, dinaa ko sol incha allah yi daal di koy indi fii eh, kon nag jaajëfal sama équipe technique yi ma àndaloon yépp ci kooku nag laa koy jox di ko félicité aussi ci diplôme bi nga xamante ne am na ko kooku di Pape Samba te sees di jàng nag ba diplôme loolu neex na jaajëfal leen yéen ñëpp nag bu ma limee rek damay jum Eva kenn du ko fàtte félicité ñu ko bu baax a baax Samba parce que nit ki loo mën di def aussi bul fàtte ni à chaque fois da ci war di perfectionner mm-hmm. donc loolu bu ko nit es une belle personne également Pape Samba donc on te félicite on te félicite et yàlla la jikk yàlla na ko jikk amiin yàlla ko jikk ndaxte ndam la ci moom mhm. waaye ndam la ci ñun yi nga xamante ne ñoo bokk bërëbu liggéey yàlla na jàmmam yàgg yàlla na ko jikk ci bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup donc Sénégal ca yàlla leen yàlla may nag allez allez les Lions